et la beauty Malaysia yumo Home Choice Sénégal marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg jërë ngeen jëf ànd ak Ousmane Sonko dem taxaw tribunal jàkkaarloo ak juge bi maanaam ab procès public l'observateur nee na ñu Adji Sarr nee na loolee bëgg ubbi yéenekaay bi gannaaw ba ñu génnee ñoom ñaar ci seen confrontation ba ci bureau doyen des juges Ousmane Sonko gontoon ci page Facebook am fa wax a leeral la xewoon ca confrontation ba Adji Sarr moom it def na démb ci guddi ab déclaration ngir tontu njiital parti Pastef li Sarr wax na fa Ousmane Sonko ay wax yu forte rëy nee na ko yow Ousmane yaa daan ñëw salon Sud Beauté di ma tooñ def nga ko lu dul benn du ñaare xamal ne xale maa gën léegi nag doonatuma xale bu ndaw ba nga daan dóor ak di ko fitnaa la kan napp ak jëfandikoo nu mu la neexe demoon ba sonn ci yi nga ma daan def moo taxoon ma porté la plainte ngir bëggoon nga may ma jàmm waaye su ma xamoon ne su la plainte fitna dina am ci réew mi ba ay bakkan des ci fukki doomi aadama ak lu teg ñàkk ci seen bakkan kon duma ko musuma incorrect ñi ma xam xam nañ loolu ci man ñëpp xam nañu ne dama correct xanaa ba mu des sa aw ñooñ te ñoom sax mu di say partisan dañu laa respecté wul ndax bu ñu la respecté woon du def fu ñu taxaw naan man Adji Sarr jigéen ju bon laa jigéen ju jaay boppam laa te ñu xam xel ne yow Ousmane Sonko jigéen joojee ngay wër Les Échos bind ci xët mu njëkk ne Adji Sarr tucc tuccee na Ousmane Sonko ba xolam sedd nee na ko dafa yàgg rek waaye di nga ma affronté Sarr nee na ab procès public la bëgg diggam ak Ousmane Sonko Le Quotidien nañu moom xale bu jigéen bi di Adji Raby Sarr ba muy wax démb raayati waxam dem na bay xamal Ousmane Sonko ne ko sama famille nanga leen génnee ci seen wax ndax sama baay moo la gën responsable ci xët mu njëkk Vox Populi Adji Sarr ak yenn yu wax démb mu di li ne li may ñaan moo di ñu dem ci procès public dëgg ji feeñ te xam naa ne ni mu ko bëggee noonee la ko waa Sénégal bëggee ñi bëgg xam ba ba taxoon Sonko gisoon boppam nañu ko xooli sax daan maase da daan toog am da daan tëdd ndax da daan solire am ndax yaram mu neen nga doon def bu dee nee nga mosoo yegg ci kaw aji noo def ba ñu fekk sa maniw ci moom lu tax nga ne doo def test ADN bi ak lan nga ñu mën tontu ci li aji ne moo daan xew ci jacuzzi ba question yu maître El Hadji yooyu suur soi ne nañu moo ñuluk Ousmane Sonko yëkkati xolam maître El Hadji Diouf suur ne nañu moom it dana conférence de presse lijjanti ak moom moo di publication bu ma defoon di ca wax ne mbiri xeet moo tax ñu enlevé Didier Badji ak Fulbert Sambou di ñaari soldats yi réeroon bi ko enquêteurs yi laajee li wax fu mu ko teg li mu leen tont moo di sama ngëm-ngëm laa wax Bassirou Diomaye Faye bu parti Pastef ne ñu ci libération Fadilou Keita xalaatam la joxe te Amath Suzanne Camara wax na fi lu ko yées te dara fekk ko ci le mandat nañu waa Pastef ñaawlu nañu kumba am nday ak kumba amul nday gi justice yoon ci réew mi di justice bi tëddeewul njaaxanaay coordonnateur bu nemmeeku xam ne dafa singili waa Pastef singili ay leaderam singili ay militangam siiñ leen fang journal Le Témoin moom xëy doyen des di Omar Maham Diallo di ñu wax li nit ñi di xaar ci moom ci coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko nit ku ñu àtte ñaare ba daan ko fu muy mujj di ca kaso ba fa la L'Observateur xëy yeewoo ubbil yéenekaay bi gëstu bu yaatu la def ci ni ñuy taxawale gang yi ci biir kaso yi wuyu yu bëri ci biir kaso bi la xamante fa la taxawale seenub ñu génnee def seeni ñaawteef mbir yaa ngi bëgg a ñaaw ci Air Sénégal di di direeku doo sor yéenekaay bi nee nañu loolee mooy bëgg a dal compagnie aérienne bii di Air Sénégal Air Sénégal ab compagnie la bu ñu bett xilaafam ba tax problème bu mu dugg ba génn ci rek dal ci leneen ay tukkikatam yu bloqué tàggatémbe ca New York gis nañu ko ci Air Sénégal ay vol yu ñu jekk-jekk annulé leen gis nañu ko ci Air Sénégal boole ceeg dëkkee bàyyi nit ñi ci kumpa amul benn communication bu direction bu Air Sénégal di def ngir gindi nit ñi Gambrendi et la Beauty Malaysia Yumo Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi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 sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps